La commune de Aérelao a baigné dans la spiritualité et la ferveur religieuse. Deux jours de recueillement qui marquent la ziara annuelle dédiée à l'une des grandes références en islam dans l'histoire du Fouta, El Hadj Mohamedou Zeyni La cérémonie officielle a été présidée par le khalife général de la famille omarienne Thierno Cet événement grandeur nature est un fort moment de communion entre guides religieux et fidèles, mais aussi une occasion de raffermir les liens entre les populations du Fouta. Bandiraɓe hitaande kala eɗen njiya e oɗo ziyara kene ɓeyda en softede kene holla en cuusal ganden ɗum ɗo ko nafoore meɗen mo on njii ɗo faya ɗo o wi jenndaangal ɓesngu ngu pop jeeri e waalo haa ɗo neɗɗo waawi ummaade pop on calminaama on njuuraama on mbeltanaama o wii fofof noon duwawu o o wii woni koye ceerno mouhamadoul madane o wii o haaldi ɗum ɗo tan ko haa ceerno madane duwano en يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون هو الله الذي لا إله إلا هو وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم حسبك tribune ne pouvait être plus appropriée que cette ziara annuelle de e pour rappeler toutes les réalisations du président de la République, son Excellence Macky Sall, dans la zone. Le directeur général du port autonome de Dakar a non seulement sacrifié au rituel, mais il a clamé haut et fort son choix porté sur Macky en Président, adani en ndiyam gure capanɗe jeegom e nayi e jeeri ndi keɓi ndiyam rawane ko président jiida e noon e forage goto mo tawnoɗen ɗo président wattani hayna forage uji tati président adani en jeygol ha heewi en jii en pawi hen guite meɗen nafoore noon ko denurol yahat tan kene kala hen mo ɓaliɗa wonma yettaki alay saago programme uji ɗi jogui golle so yeehi ha heddima gotal yoo totte pewɗo junngo mo wofata so en mbi président makky sall ko nafoore mere mere en jii en pawi heen gite meɗen minen hayrenaɓe min mbi président jokku golle 2024. Pour cette 38e édition, le thème principal choisi est la culture de la paix. Soucieux de la stabilité du pays, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, a sollicité les prières du khalife de la famille omarienne pour le maintien de la paix dans le pays et le deuxième quinquennat du président Macky Sall. a haali mon taga min yettin président aussi décision mon e de Podor wonde goonga kay minen emin jiɗi minen e seeren kalif mon allah ɗum min ñaaguima on duwaw belande allah wallata min président daña deuxiéme mum kenkana woni deuxiéme mandat mo ganduɗa ko on baddateno Tcherno Madani renchérit en louant les prouesses économiques de Macky qui a fait selon lui ce qu'aucun autre chef d'État sénégalais n'a réalisé. Senghor puusi Sénégal Abdou Diouf puusi Sénégal ɓe fof no peewi juuɗe kono wone maɓɓe woofooɓe wone maɓɓe woofooɓe sono pella pellirta ko ooga bange mbasa fellirde ooga bange o wi kanko ceerno o yii peewɗo junngo tan pelloowo bangeeji fof fiɗa on ko makkisal wona pour omo haala omo haalkinoo nii tan de alaa Selon le guide religieux, il faut donner la seule flèche qui reste dans l'arc à l'homme le plus adroit et le plus habile, et c'est Macky o wi museelo maire wi o wi kure ma aɗa heddora kural gootal yo peewɗo junngo totta ɗum o wi ɗum o wiyata ɗum mataw ko président kono hannde o kanko jogiiɗo fetel o kure men fof ko kanko tottaten président de la république ko peewɗo junngo cette ziara annuelle qui permet de revisiter l'histoire du grand guide spirituel Mouhamadou Zeyni Dini Ba et de s'inspirer de son vivant a ainsi tenu toutes ses promesses pour les fidèles venus boire à l'une des sources de la connaissance islamique du Fouta